alif laam miim zalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi mbokk yi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 44 477 40 02 point 32 asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaari waxtu ci bëccëg di 14 heures toftal nañ ñeen fukki simili ak juróom fii ci groupe Mouhalim numéro 6 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeur ak auditrice Mouhalim info ñu ngi leen di nuyuwaat baax di leen siyaar ngeen mën di nekk ci biir réew ak ci bitim réew wër groupe Mouhalim di fi taataan ay xabaar tey aljumaa fukki fan ak juróom benn ci weeru août dëppoo fukki fan ak benn ci weeru leen li ñu am ci xabaar ci subaak léegi di jégu nag ah, naaja tàmbalee ko ci député yi nga xam ne tey jii xëy na ci assemblée nationale ngir plénière règlement intérieur bu assemblée nationale kon la ñu fas yéenee soppi kon député yi ñu waru leen tey ji fukki fan juróom-benn ci weeru août ngir soppi règlement intérieur bu assemblée nationale ginnaaw dajek ñi nga xam ne kon mooy bureau bi ga ci liggéey bi ci war jaara ci commission euh, des lois kon règlement intérieur bu assemblée nationale tey jii la ñu ko war a soppi euh, daal jaara ci benn proposition boo xam ne ne ñu toll ci 119 parlementaires juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay député daal dinañu koy porté muy loi bi ñu yóbbu foofu kon ca assemblée nationale tey jii ngi daal di koy daal xoolaat lu ñuy réglement intérieur bi su ko defee nag la doon la ñuy bëgg kon te ko xalaat muy ilimaani ñu Ousmane Sonko ñëw kon amal li nga xam ne moo di DPC wam question bi nag mooy ndax Ousmane Sonko dina ñëw wala du ñëw ndax Ousmane Sonko diggante fii mu war a agsi nationale bi fi ñu daal question bi kon mooy loolu mooy copp yi noom règlement intérieur bi moom tey ci la xëy te njorteef na dina am beneen question bi nag mooy ndax Ousmane Sonko dina ñëw ci diggante bi ndax ne moo di yi ñu bari kon ci assemblée na nag ñi nationale bi ndax jàpp na daal amatul benn ah, solo daanu ci dellusiwaat. Mouhamadoul Amine Diallo il est temps de dissoudre l'Assemblée nationale député yi ñu warul leen teg gii ngir lu ñeel séance plénière coppi règlement intérieur bu assemblée nationale bi Mouhamadoul Amine Diallo génn wax ci ne day mën naa am man nekk ku compliqué waaye nag ku cohérent la maanaam daal li may wax fu leer nañ laa koy teg ndax kat nee na lii waxoon na ko bu yàgg critiqué woon na régime président Macky Sall ci procédure d'urgence boo xam ne defoon nañu ko ci lu ñeel proposition de loi fii ci assemblée nationale mu gisoon ci ay mbir waxoon na nañu ko sensé bindoon président assemblée nationale defuñu ko defuñu ko ba tey jii ñu door a kon jug naan dañu ci nekk ngir déclarer di soppi mu jàpp na kon yoon jox na ko dëgg ndax depuis novembre 2022 kon la bindoon wax lu ni mel ne kon ay euh, assemblée nationale bi règlement intérieur bi am na ci nekk loo xam ne war nañu koo xoolaat tey jii kon ñu bàyyi ba tey di ci door daal li mu jàpp rek mooy jot na sëkk kon assemblée bi daal di koy tas. taxawal bu yees moom Mouhamadul Amine Diallo président bu mouvement tekki bokk ci coalition euh, Diomaye président. nu sommes prêts à aller aux législatives pour imposer une cohabitation au pouvoir Aji Mbergane Kanouté wax na Aji Mbergane Kanouté opposition bi day noppi nañu kon ngir dem ci élection législative yi ngir fas yéene imposer li nga xam ne kon moo di cohabitation dio Ousmane Sonko ak Diomaye fële ci assemblée nationale mi ngi bawoo kàddu yooyu ci honorable député soxna Aji Mbergane Kanouté bokk ci APR waaye itam fara ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñun daal noppi nañu kon ngir imposer cohabitation pouvoir bu yees bii fii nekk fas nañ yéene wala bokk noppi nañ ngir nekk ñun maanaam daal dañoo fas yéene nekk benn àndandoo boole suñu ay doole dimbalante liggéey liggéey bu am solo waaye itam yaatal uh, sunu làng bu mu gën a yaatu ngir nag dem ci législative yi fexe kon ba imposer cohabitation pouvoir bu yees bi nga xam ne moo fi nekk te loolu nag ma wax. noppi nañ ci te président bu coalition benn Bokk Yaakaar muy président Macky Sall gis na wan yoon la ñu war a jaar ngir am victoire ci législative yi ñu dëdmal mi ngi koo xamle ci waxtaanu mu seqoon ak jottali xibaar ba tey moom soxna si lu ñeel DPC bu euh, premier ministre Ousmane dafa jàpp ne daal bu ñuy wax mbirum règlement intérieur am na lu ko féete kaw te moo di kon euh, constitution bi kon jàpp ne la waral euh, président. wala boog élément de jury ñëwut amal li nga xam ne moo di DPC wam dafa ñàkk rek respecté li nga xam ne kon moo di constitution bi mais la jaadu ci moom mooy kon mu ñëwoon boobee kon ngir def ko comme ni ko constitution bi diglee laaj nañ ko itam euh, ne na ko conseil supérieur de la magistrature moom soxna si rek daal nee na foofu moom gis na ne président moo am prérogative di ko def président moo am prérogative di fal moo xam ci militaire civil ba jëm li ñuy wax dem justice kon noonu naka jekk da ko façon maanaam daal constitution bu mu amoon ci jamono président Macky Sall ne loolu ay prérogative la moo ko sañ du xaar ba tey jii kon muy soppiku ci loolu jàpp na ne kon loolu bu amee président def koo sañ moo tax mu def ko. le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement à Touba ce matin jëriñ ji dénk wàllum hydraulique ak assainissement docteur Cheikh Tidiane Dieye ñëw na ci dëkk bu sell bi di Touba tey su suba gi gouverneur bu région bu Diourbel daal da koy dalal mu ànd ak directeur général bu yes bu ONAS di Seny Diène mu daal di ñëw kon ngir fas yéene amal tukkib nemmeeku dem ci lenn ci warab yu ñeel daal euh, station pompage gi ci aju ngir wàllu inondation yi waaye itam lu ñeel itam ndox mi nga xam ne itam moo leen askan yi jëfandikoo ci màggal gi itam lépp loo xam ne daal euh, mën nañ ko ci ñu def ko jël bépp matuwaay ba ca war ngir fexe ba ñàkkum ndox du sonal askan wi ci màggal gi def ci la man waaye itam ndox mi nga xam ne mooy itam ndoxum inondation yi itam ñu wut ci ay pexe ngir fexe ba pompe ko ngir gën a jàppandal màggalu Touba atum 2024 muy gan ñeek ñi leen di dalal ci dëkk bu sell bi ci Touba. ONAS Cheikh Dieng parle ce vendredi ñetti weer la am ci bopp ONAS ñu tekki ndombal tànkam docteur Cheikh Dieng amal kon passation de service ak ko wut léegi fële ca euh, ONAS bi seeni jenn moom mi nag dafa waroon amal jeenoo ak taskati xabaar yi ñëwaat ci lu ñeel daal lañu ko jëlee foofu ca aju. da ko dàqoon nag waaye bu ñu sukkandikoo ci les échos tey jii kon ci aljumaa gi 16 kon léegi mu tàmbali ci la war a amal jenoo ak taskat yi xabaar yi ñëwaat nag ci lu ñeel daal li mu jiitoon ak fi nga xam ne ko moo di ONAS ak ci am ak ba ñu tekk ndoomal tànkam ci fàttali moom ñi fareek moom ñi fareek moom daal ci wàllum politique nag ñaawlu woon nañu ak dàqam ak kàddu yi ñu ci yëkkati ginnaaw bi jàppee kon dañoo daal di bëgg a tàqal ab deram mu fas yéene kon ñëw tey ji andi ci ak tontu waaye itam andi ci ay leeral ci fàttali nag moom docteur Cheikh Ndié mii membre la ci coalition Diomaye Président le regroupement des boulangers du Sénégal invite le gouvernement à révision des prix. ginnaaw ñaari weer yu ñu wàññi njëgu mburu mi. gouvernement bu réewum Sénégal def ko regroupement des boulangers du Sénégal RBS jàpp nañu ne mënuñoo wéy di jaayee njëgu mburu mi fii nga xam ne fi la ko gouvernement bi daal di kon fixé ndax am nañu ay jafe-jafe li ko waral moo di facture ndox ak courant yu yokku ba tax daal ñoom nee ñu ay jafe-jafe dëgg lañu am ci gis nañ ne. mënatuñoo jaay mburu mi ci prix yi nga xam ne ci la gouvernement bi fixé ndax courant bi cher na ki ñoom ndox mi itam cher na ki ñoom bu ñu ko bëggee jaay lu gouvernement bi di wax kon loolu arrangé leen bu ñu sukkandiku kon ci Badaga sama ak ñi ma àndal ba tax na ñu ngi woo gouvernement bu réewum Sénégal jaara ko ci benn conférence de conférence de presse bu ñu amaloon ñu sukkandiku xabaar bi kon ci bés bi yéen a kaay ñoom daal nee ñu lii bu continuer entreprise yu bari kon mën naa la di kon mi ngi ci daal dansé mën na leen a daaneel ndax mënuñoo nag dëkk di di perte te nag li ñu fixé njëgu mburu mi gis nañ ne attanu mënta nekk ndax ay jafe-jafe yu am ci seen wàllum liggéey ñoo ngi woo gouvernement bi nag mu ñëwaat ñu toog ak ñoom waxtaanaat xoolaat prix yi ca dëgg-dëgg ndax kat lii ñu gis mënta ànd ak maanaam daal ñoom seen liggéey bi li gouvernement bi di jaayloo mburu mi ak jafe-jafe yi mu ciy jànkuwanteel mënta nekk ba tax na kon ñu ngi woo gouvernement bi kon ñu ñëw xoolaat lu ni mel ndax bu loolu kon jafe-jafe mën naa daal di am di lool regroupement des boulangers du Sénégal ñoo ko daal di njëgu ceeb bi sukkar si diwlin gi amul lu ci wàññeeku waaye tam amul benn contrôle xabaar la bu bàyyi ko ci enquête yéene kaay gouvernement bu yees bii nekk ci réewum Sénégal waxoon ne kon jël na ay dogal ngir wàññi njëgu dund gi yi ñuy wooyee denrée de première nécessité muy diwlin geeg ceeb beeg sukkar si ak yenn mbir waaye daal loolu yi ñu waxoon ak li am jamono ji kon eh, daal bokkut maam nañ ko bëgge woon ak ni mu amee ba daal wuute na ndax bu ñu sukkandikoo ci kaw ci xabaar gii di enquête yéen kaay nee na tey jii sénégalais yi ñu ngi wéy di dundu njëg yu cher ci lu ñeel yi nga xam ne mooy produit des denrées euh, produit denrées alimentaires mooy li ñuy jëfandikoo rek le 24 juin bi ñu génn gouvernement bi kon génnoon na ab arrêt fixé njëgu diwlin gi sukkar si ak ceeb bi waaye daal fi mu ne nii moom day mel na commerçant yi lu neex la ñuy def en tout cas ginnaaw war naa mat ñaari weer. amul daal benn efficacité boo xam ne am na root na ci terrain bi soo demee di jënd bu ñu sukkandikoo ci enquête yi ne kaay daal nee na ba léegi njëg yaa ngi wéy di cher ma ne daal ba tey kattan wala boo xam ne daal état bi am na ko ngir imposer jaaykat yi ñu wàññi li ñuy jaay dëppoog li gouvernement bi santaane day mel daal mënul nekk. inaa ko waa jàppoo di wax na daal fi mu ne nii njëg yi ñuy jaaye ci marché yi wuute naag li nga xam ne moom la état bi fixé ki ñu jaaye lii nag man mii di wax ak yéen Mouhalim mën naa ki seere wax dëgg yàlla njëgu wàññi teg njëg moom ci réew mi ci li ñuy wax ci diw gi ci diw ceeb bi man dama daan jënd ba léegi laa jënd xaw ma nag fuy problème bi waaye dama daan jënd ba léegi laa jënd gisuma wàññi de kon loolu mën naa firndeel kon lii kër Cheikh Bara gi di enquête yéen a kaay wax màggal Touba 2024 l'ARTP mobilise les opérateurs pour une meilleure qualité du service le nouveau directeur général bu autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP la mu bëgg daal mooy màggal un màggal zéro couac maam daal màggal goo xam doo am benn jafe-jafe ci wàllum communication muy jokkoo geek wàllum internet bi gi ci aju na ab visite démb ci dëkk bu sell bii di ah, Touba ay wax fan su suñu diggante màggal gi moom la DC daayiru Thiam kon daal di ñëwoon daal ngir amal kon li ñuy wax visite d'inspection saytu gëstu waaye itam fexe ba waxtaan ak opérateurs yi ñu def lépp lu ñu man ba ci ah, daal jamono màggal gi kon jafe-jafe yi ah, communication du am kon ci ñiy ñëw muy nekk ay millions millions nit ñëw fii kon ci dëkk bu sell biir yi Touba kon ñëwoon na fi ànd ak équipe technique am moom directeur bu a tp ARATP. syndicaliste yi liggéeyee fële ca port ña ngay ñaawlu doxaliinu kilifa gu yees ga di Waly Diouf Bodian moom nu nouveau directeur général bu port autonome de Dakar jamono jii kat diggante mag ñi nga xam ne kon ñoo di syndicaliste yi neexootul fi mu ne daanaka ñu ngi ci kon conflit la ko waral nag ñoom ñoo di syndicaliste yi dañoo jàpp ne daf def lool conflit d'intérêt moo ko ci dugal dafa am benn marché boo xam ne dafa am ko gañe foofee ca port te nag nee ñu moom mi gañe marché bi conseiller la mooy conseil technique bu deesee bu port yëmu ci itam mooy point vocal bu DG bu port ñu jox ko jox ko am marché boo xam ne daal ñoom syndicaliste yi kon jàpp na loolu jaaruwul dafa daal di kon moom mii kilifa gu port gu yees gi bu ñu sukkandikoo ci syndicaliste yi dafa daal di kon violé dafa daal di kon def violation bu mag a mag ci article quatre-vingt bu code des marchés publics ba tax na kon ñoom syndicalistes yi daal jàpp nañ lu ni mel jaagut ña ngi koy daal di ah, naqarlu marché bi kanu ko jox waruñu ko woon a jox buñu sukkandikoo xabaar bi ñu ko sukkandikoo ci les échos ak lu mën a xew ak conséquence juridique bu mën di jur loi d'amnistie bi dañ ko war a abrosé kàddu yi bawoo ci brahim Seck coordinateur bu forum civil moom daal jàpp na ne kon dañoo war a abrosé maanaam daal dindi loi d'amnistie bii ñu wotee ngir ubbi ab enquête ci xam njaboot yi la bokk ñi nga xam ne kon am nekk nañu victime ci li xewoon ci réewum Sénégal ñi ñàkk seen bakkan ñi am ay gaañu gaañu nga xam ne seen njaboot jamono ji kon ñi ngi yuuxu ngir bëgg daal dana mel daal di am moom Birahim Seck jàpp na na jàpp na ni conséquence juridique bu mu mën di andi muy loi boobu itam terewut dañ ko war kon abrogé dindiwaat lañ ci wote ubbi ab enquête gëstu ba xam te dëgg-dëgg xew ca mbir yooyu képp ko xam ne kon jàdd na yoon yoon dal ci kawam. ñu waxati ci wàllu immigration clandestine ak lim bu takk boo xam ne kon wàllu immigration clandestine kon ci la waxaat cent quarante et un migrants gàntal nañu seen dem te jii ci géejug dakaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ñu interpellé leen tey suba ci géejug Dakar gendarmerie bu brigade proximité bu kër Marème Mbeng de Lac Rose kon ñoo ko daal di amal ci ñoo ñu ko daal di jàpp candidat am na ki 33 femmes mooy fanweer ak ñett ci ay jigéen ak 6 enfants muy fukk ak juróom benn ci ay xale